El Hadji Ahmed Aïdara. Bismillah. atew Khalifa Sall bi day eh, ma ne la la solo yéene kay ne waaye Khalifa Sall waaw gars yi mu dugal nañ ko ci ay jafe-jafe de maar day taale ma ne la Fatou Traoré mi nga xam ne e eh, la ma doon signé day bagage amu ci dara loo xam ne kon mës nañ koo livré laa la wax déet waay Fatou ne ah kay Amadou la ma doon signé noonu de ñëpp mais ngoowul woon ak yoon de Yaya Bodian mi nga xam ne nag maanaam moom mooy comptable maire bu Ndakaaru Ndiaye Jël Diop waaw nee na facture yi dañ ko société bi le quotidien yéen waaye Khalifa Sall waaw la mu ca gis nag lii wàllum fond politique ma ne la mbir mi nii lañu ko doon doxalee yéen kay gi ne ay kàddu yu njëkk yu Khalifa Babacar Sall day waaw démb la jëpp ma ne la maire de Dakar daal dinay xam le ne lépp mooma waaye tuumaal na de Khalifa Sall ne lii adéw politique la procès politique la lé la bu ko xeex waaw réew mi quotidien ne Khalifa Sall day waaw ma ne la laal na naka kooti ga jam na baaraam moom kon ca góom kuy jël te ci sama dund day day bu ma ñëwee fii ah. parce que ma ne defal lii ma ne soxlawuma ko ne téye téye te monsieur le président ah. lii tàmbaliwul tey juin 2012 dund naa lii septembre 2012 dund naa lii ñu ne ma kaay jël lii ma ne soxlawu ma dama ne dañu ma proposé ab marché laa la wax ma ne soxlawu ma décliné te gis nga en 2014 tamit tey loolee laa dundoon yow monsieur président mbir mi doxul ba léegi nii ça n'a marché looloo tax sax tey jii ma ne nag dinaa wax luy jot nag jot na ginnaaw dee barke na suur laay ma la maire de Dakar ci tribune yéene kaay yemu ca parce que Khalifa Sall nee na nee na gis nga wàllum ate bi ah! man la te monsieur président Malick Lamotte gis nga góor célébrer lii du dara damaa bëgg nag monsieur le président nga yeewi ñii ñibbi te man nga adama juge Malick la moo day si ko tijjee ne kay waaw nee na ko ñun nag danoo ñëwul fii ndax ay wàllum politique ak yooyee waaw waaye dañu fee ñëw ngir ay mbir yoo xam ne kon ñu tëju la laase day waaw ma la ubbi na caisse d'avance ba day day la la caisse d'avance koo gee ko tijjee nee na xalifa daal lam ta wax waaw mooy adama man looy njiig maay njaak josim du ak wal waaw waaw di attaqué président Macky na jafe-jafe yi nga ma ba ci dëkk ba xam ne kon foofu la président Macky Sall kon fekk baax nee ma fa teg day bëgg a te kuy bëgg a nag wéqu parce que Idrissa Seck xam nga ne mooy daaneel Abdoulaye Wade waaw xaw ma lu ko ruux ba Idrissa Seck laa lay wax nii dem kon fekk ji kii di la ko sénégalais kon mere mu nekk lu ko faral lool ni ko coro saar rek Abdoulaye rek gonee koy waaye ma nga koy daal waaye Idrissa Seck day ah. a day mën na koo ndam lu rëy Macky Sall est dana am ndam 2019 Mamadou Ndoye mi jiite woon LD ci enquête yéene kaay nee na Benno Bokk Yaakaar day bu ci yaakaaree rek de mar d' itali waaw ma ne la Benno Bokk ci boppam ko doyotul ngir Macky Sall gis nga président Macky mi waaw mook alliés yi nga xam ne kon moom la ñu ci Benno Bokk Yaakaar day ils sont minoritaires laa ilaaha illallaah boo jëlee opposition bi yëpp dajale leen waaw ñoo ëppale Macky Mamadou Ndoye LD mooy wax déedu samay kàddu wax li votel opposition bi ëppale fuuf njolle li votel Macky bu ñu jëlee résultat élection député yi waaw bu doon looloo amaat ci élection présidentielle yi day ma ne la Macky Sall deuxième la jëm te bu jëmee deuxième te dañu koy gagné la ilaha illallah waaw waaw Assane Mbaye journaliste bi koy laajte enquête ne ko waaye président tey jàpp na ne bilan bii mu def moom Macky waaw baax na neex na ngir yay sénégalais yi ngir ñu mën koo jox deuxième mandat bilan bi Mamadou Ndoye ne ko bilan ban président nga fi gis bilan doyu ko yow gis nga Abdoulaye Wade 2012 yaakaaroon leen maanaam kon bilan boobee waaw doy waaye gis nga fa mujjee fa ñuy mujjee ak yi Mamour Cissé ci tribune yéene kaay nee na nañ ko organiser rek waaw war naa ba élection présidentielle yi ñu daal di fal nag benn nit boo xam ne day tëddee njaaxaan naay une personne ngir mu organiser nag élection présidentielle ya loolu dëgg yéene kaay gi ne Ousmane Faye day nee ma bu wattu waaw naxaru na bu baax a ab reer nga togg ba mbaax jagleele ko sa gan gii di Emmanuel Macron lu fi jar poñ yi looy fecce Ousmane Faye ne Sénégal ak Sénégalais yii temps nga xam ne kon li ñuy dund mbir mi mi te doon yaa ngi mel ni tulleeg maladie front social bi en ébullition waaw xalif généraux yee ngi dee marti Italie la ilaha illallah Ousmane Faye biram ne Macky Sall kay mënoon naan lekk rek naan ak ganam gii waaye nag da bañ a fecc kon jàppale bee yow nan nga mën a feccee am yéelaa de daa feebar tuberculose libération yéene kay ne en tout cas ay compte bi moo bourgi day ca Monaco waaw doon na yëngu de juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards mouvement maa la ko wax dem naa ca lamb ja ne diggante Ama Baldé day waaw ak Papa Sow mi waaw mbir mi dee daa mel diggante Modou ak Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye 2 Ama Baldé lay jàppale Modou Papa Sow lay jàppale Malick Thiandoum ne en tout cas daal Ama Baldé ak Papa Sow waaw ñu ci état de physiquement mentalement dama a <laughs> fexe nag ba bu ñuy dem stade nañ ànd ak ay nit ñoo xam ne yàlla da leen xaayaar nag ku dégg séeréer boo paree ma la alaaji tëjal su ngeen